démb ci Sénégal Reporters sans frontière daf fi tijji bureau reporter sans frontières daf fi tijji bureau en Afrique subsaharienne muy bureau boo xamante ni dafay polariser les quarante pays plus de quarante pays fii ci Afrique subsaharienne au même moment ñu téye koo xamante ni dafay symboliser la liberté d'expression muy Pape Alé Niang monsieur le ministre ñuy ñaan Pape Alé Niang ñu bàyyi ko mu dellu këram parce que fi mu nekk du place am moo ngi demare benn grève de la fin et je pense que c'est inadmissible et c'est une honte pour la justice sénégalaise Sénégal boobu ba tey maa ngi dégg mes chers collègues ñuy sëf justice su Sénégal loo xamante ni dañ ko considérer comme un pouvoir au Sénégal nous n'avons pas un pouvoir judiciaire nous avons une administration judiciaire moo tax li ñu bëgg ci moom mënuñu ko am c'est une administration malheureusement bi nga xamante ni exécutif depuis deux ans daf koy jëfandikoo nu mu ko neexee en 62 gis ngeen li nga xamante ni moom moo xew Sénégal en 73 Omar Blondin Diop ba tey mënuñoo xam ci yan circonstances lañ ko rayee boobu ba tey en 87 des policiers injustement radiés en 88 89 93 maître Babacar Seye en 2004 Idrissa Seck bâillonné emprisonné après un non-lieu total Macky Sall a failli passer en 2008 dans des conditions yoo xamante ni tey mënoon na dem kaso ba du nekk président tey su su su su suñ borom defuloon sutura beneen bi mooy en 2012. Khalifa Sall Karim Wade Ousmane Sonko ñoom ñëpp da ngay gis ne à chaque fois qu'il s'est agi d'un homme politique bu am jafe-jafe la justice dafay wane son impuissance et que loolu li ko waral mooy administration judiciaire la ñu am boo xamante ni saa bu nguur gi ñëwee da koy jëfandikoo di ko def nu mu ko neexee loolu moo tax depuis 62 ans l'État est considéré comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte ku téye rek da ngay dóor ñi nga xamante ni ñoom nga ñoom nga ñoom nga ñoom nga yilif donc leneen li nga xamante ni aussi feeñ na ci administration judiciaire bi ñu am monsieur le ministre mooy la dignité humaine comment elle est entamée dans les lieux de privation de liberté loolu moom rëbës gi c'est une honte pour le Sénégal képp koo xamante ni rafetlu nga li xew rëbës mooy sa njaboot nekku fa wala sa doom nekku fa dem naa lib camp pénal liberté 6 monsieur le ministre le sort de ces enfants keroog laa découvrir ne foofu ñuy tëj soxna yi ndekete jigéen bu yóbbaalee ëmb am foofu doom wala ku fa yóbbaale xale xale yi foofu la ñuy màggee ban mooy seen sort lan mooy seen sort la justice ci xale yooyu nga xamante ni ils n'ont absolument rien fait ma fekk leen dans des conditions extraordinaires les longues détentions les détentions provisoires yi nga xamante ni dafay gudd ak mandat de dépôt ni mu yombee ci Sénégal ba nga xamante ni nous sommes tous en sursis leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy monsieur le ministre de la Justice, à quand un procureur de la République au Sénégal parce que procureur de la République mooy koo xamante ni bu Sénégal nekkee ci guuta ci guddi gu ba setegul ñu mu génn jël une parole boo xamante ni c'est une parole sacrée c'est une parole boo xamante ni dafa am solo sénégalais yépp déglu ko mais léegi à chaque fois que le procureur de la République sort ñuy gis ne yaa a un affaissement de cette parole qui devait rester extrêmement importante tey jii am na ñaar ñoo xamante ni dañoo génn àdduna muy Didier Badji ak Fulbert Sambou dans des conditions nébuleuses mais c'est à travers un communiqué laconique et lapidaire ci la ñu wane ne ñu faatu na alors que ñooñu du n'importe quel sénégalais ay sénégalais yoo xamante ni dañoo soloot tenu dem di xeex pour Sénégal di jaay seen guddi ak seen bëccëg pour Sénégal donc monsieur le ministre je pense que aujourd'hui on attend le procureur de la République sur ko ci dégg mu wax sénégalais mbir mi fan beneen bi mooy le troisième mandat monsieur le ministre la république c'est le renoncement c'est ça qu'il faut dire au président Macky Sall Abdou ah, a renoncé au pouvoir à un moment donné Abdou Diouf y a des y a des gens yoo xamante dañ nekkoon bul dem il a renoncé au pouvoir Abdoulaye Wade dafa am ñoo xam dañ nekkoon bul dem il a renoncé au pouvoir ne ne demandez pas au président Macky Sall de, de faire moins que ses prédécesseurs et qu'aujourd'hui il doit rester dans l'histoire te aujourd'hui porte bi nañ ko ko pour mu rester dans l'histoire c'est d'organiser des élections yoo xamante ni du ci bokk au soir du 24 février 2024 leneen li mooy la violence qu'on a notée la les sociétés humaines les sociétés humaines ont la politique pour lutter contre la Elles ont inventé le pardon pour lutter contre la violence et la prison pour lutter contre la violence. On ne peut pas inventer la politique, la prison et le pardon et continuer di gis violence dans l'espace politique, c'est inadmissible. Et nos démocraties sont victimes de l'immaturité de ces hommes politiques, mais surtout de l'immaturité des autorités yi nga xam ñoom ñooy diriger suñu réew. Merci cher collègue. Non au troisième mandat. Tey ñu taxaw débat boobu di ñëwaat. Li tax ma jaaxle ci yow. mooy dañu génn commission bi ñu la laajee question bi mooy bi nga ñuy wax naan nul ne peut faire plus de deux mandats bi ñu la koy laaj da nga wax ni c'est le professeur moom moo doon tontu man ma tiit parce que tout simplement yow yaa doon légisticien bi ñu dénkoon liggéey boobu tey nga ñëw taxaw ni c'est le professeur qui parlait ban Ismaïla Madior Fall la ñuy gëm kon que nag tous les clignotants sont au rouge pour que réew mi mën a tàkk ëllëg te bu réew mi takkee doo ci mucc bu réew mi tàkkee doo ci mucc parce que tout simplement xaaroon nañ la feneen fu dul fii te nag jàpp naa ni ku ci nekk am nga rôle ak responsabilité boo war a jouer mais yow mi ñu dénkoon mbir moomu nga def ci loo xamante ni débat bi di perdurer tey ñuy wax ñu naan ñu ñaari kenke quinquennat alors que yaa ni woon nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs on ne parle même pas de cinq ans ou de sept ans tey ñu ñuy renvoyé ci conseil constitutionnel donc war nga xoolaat bu baax a baax li nga xamante ni mooy sa taxawaay beneen mbir bi nga xamante ni moom laa bëgg a wax dama ko dund mooy lan procureur doole ji mu am il faut que ñu jéem a xoolaat nan la ñuy wàññee doole jooju parce que parquet dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy. Euh, ci àtte bi parce parquet mënu ci bokk ba pare soo ñëwee tey bu neexee procureur mu placer le su mandat de dépôt wala mu dénk li nga xamante ni moom mooy cabinet mu dénk koo cabinet bu ko neex évoqué yenn articles yi ñu placer le sous mandat de dépôt parce que bu boobaa le juge d'instruction a les mains donc jàpp naa ni war nañu wàññi doole procureur naka la ñuy wàññee doole procureur mooy il faut instaurer li ñu tuddee juge des libertés comme ni ñu ko amee ci juge d'application des su ñu xasee ba dugg kaso ñun ñi nga xamante ni dugg nañu ko sax xam nañ ko su suñu njaatigee mooy doon le juge d'application des peines donc jàpp naa ni juge des libertés war nañu ko instaurer à la place du procureur bi nga xamante ni dooleem bari na trop il faut se conformer la présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue et loolu su ñu ko waxee ñu nekk ndakaaru ñu ngi ndamu mais boo demee ci biir région yi aussi comme présence u avocat yi bariwuñu fa souvent dañuy jàpp nit avocat du ñëw ñu def liggéey bi ba déférer ko au parquet te amul kenn ku koy taxaw loolu jàpp naa ni bu ñu amoon benn fonds d'accompagnement ci ñi nga xamante ni ñooy avocat yi bëgg installé ci région yi loolu dana am Euh, solo bu baax a baax il faut aussi trouver une alternative au mandat de dépôt systématique en instaurant une garantie de justice en relation avec la caisse de dépôt et de consignation parce que jàpp naa ni Sénégal rek la rap bëri dañu lay jàpp ak loo mënti def mandat de dépôt rek donc si vous voulez désengorger li nga xamante ni moom mooy ces prisons là am na yeneen stratégie yoo xamante ni war ngeen ko mën a def lu dul mandat de dépôt systématique jàpp nit yóbbu prison te am na kenn ku ko wax mois je l'ai refusé je ne sais pas ndax am na ñenn ñu koy refusé nga dugg ñu ne dañ lay fouillé bu ñu lay fouillé wax fa dëgg yàlla kay mais nañu la palper làmbatu la bàyyi la mais da ngay simmi sa yére yëpp comme ni la sa ndey jureewal en tout cas bi ngeen may jaay doole dugal ma ci prison bi moi j'ai refusé sa et je demande à tout sénégalais bu ñu jàppati bëgg la simmi comme ni la sa yaay jureewal na nga ko refusé comme ni ko imam Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm refusé woon maa ngi leen di sant bu leen gërëm.